Yewwi pour pour quand encore. Yewwi dara waru ko yàq gis nga le président Ousmane Sonko ni ma joxee Khalifa cër joxe ko Barthélémy Dias cër laa ko joxee cër. Mhm. doo dégg lu ñaaw parce que waruma. Mhm. waruma ku ko saaga dafa maa war a metti donc man waruma nangu tamit keneen di saaga Khalifa Sall. c'est vrai Barthélémy Dias xool li ko wax si li ñu amul lu ko yàqul si forum bi. Mhm. de fait que mu mu mu le président Macky Sall fu ñu ko teg. te nee na il a aussi ñëpp la invité wax na ko sànq. te pour man président Sonko loolu damay dem parce que moom mooy président réel. nee na ji na ko loolu sax en fait. voilà ji ji na ko ko. voilà yaa may dégg président même bu def ko ko ji sax mais mooy président réel. waa mm-hmm. des réseaux des élus. locaux. waaw un élu di dalal forum bi invité la ñëw. en tant que la. Mm-hmm. maire Dakar. recevoir ay gan yoo xam ne dañu jóg part dans le monde président Macky bu ñëwul mais ndaje boobu lu si day bëri Africité amoon na fi. le maire de Dakar Khalifa le maire de Dakar Khalifa Sall da ko organisé. Mhm. président moo ko moo il faut ñu mën a dissocier l' état ak la politique bokkul. loolu fi ñuy yóbbu ci niveau d' bi ñu toll jamono ji entre acteur politique. loolu mooy loolu mooy danger bi waruñu fa yegg waruñu fa yegg. lu may ñaan daal mooy na xel yi dellu si waat dara waru fi yàqu. est-ce que yàquwul bu pare. non du yàqu. parce que Barthélemy tey à l'entendre parler il n'a pas été tendre du tout. non envers Ousmane Sonko non c'est que Barth ko tooñ. xaw ma nag nga ko déet mais mayu ko dara. am lu ma déglu mais pare gu ma mhm. woon si kaso bi. Mhm. man woo na si biir kaso bi ma dem seeti ko mu ne même su may dee si kaso bi naa dee. mais mais na fi jógee. Mhm. si kaso bi laa wax moom wuyu ji ko fekk ci kaso bi temps boobu parloir amagul woon. grillage ngay def di ko jàkkaarloog moom mu ne même su may dee si kaso bi mu yóbbu naa dee mais na fi Abdoulaye Wade jógee xeex leen bu leen bàyyi. mais foofu la Ousmane Sonko toll tey jii. non mais mais maanaam euh, fugg bi baax amoon jamono yooyu. waaw nee na léegi c'est assagi. waaw d'accord fa la toll. ensuite su ma déggee ñu ne kenn defu fii li nit ñi def kenn def ko Barthélémy mais dem nañ këram ñu baal ma si kàddu gi may bëgg wax fekk yaayam dóor ko taatu fetal. jàpp papaam jàpp ko moom yóbbu. loolu c'était quand fàttali ma ko fàttali ma ko ay 2012 2011 c'était sous Ablaye Wade. waaw yaayam yi doo ko taatu fetal jàpp papaam jàpp ko moom yóbbu. Mm-hmm. tëj papa tëj doom gaañ yaay. bu ko baatu fàtte fàttuma ko Sénégal yi mu déglu xam nañ ko donc baat amul lu dund lu métti si politique Sénégal. mais c'est justement ça en fait ce qu'il a subi ci régime Wade ah subir ko ci régime Macky Sall. on s'attendait pas à ce que vraiment rapprochement di am di jóge ci moom Barthélémy Diaz. rapprochement comme lan rapprochement lan moom pour Macky Sall au au au au classe politique bi. waaw mais c'est war na ko def baat léegi dafa war a xam ne maire Dakar la. xam nga ko waa APR doon xasee bi ñuy campagne. Mhm. yéen nga far meeru xeexkat. waaw maa ngi koy fàttaliku bu baax. bu faloo du tala liggéey day xeex rek. war na leen ne moom il mature. Mhm. bu xeex jotee mu xeex waxtaan jotee mu waxtaan baat loolu la jàngal